maire bu Diass di Mamadou Ndione sumb ab campagne de reboisement lu toll ci junni ak téeméer ak juróom fukk ci ay garab ñu fas ko yéene jëmbat ci gox-goxaan yi cérémonie de lancement bi nag ñi ngi ko door niki tey ci suba ca mairie ba. lii dafa jóge ci commission environnement ah ñu porter ko ensemble mais li ci ëpp solo mooy jeexital bi maanaam tey jii junni ak ñaar fukk ak juróom eh, ak téeméer ak juróom fukki garab la ñuy fas yéene jëmbat tey ci commune Diass tàmbale nañ ko ci mairie bi. waaye dinañ ko yóbbu ci village yi yëpp. am na ci garab yoo xamante ne am na meññanteef yu ñu lekk am na ay limon mango goyave ak xeetu garab yu bëri waaye am na ci yoo xamante ne aussi pour pour pour kerlu la nest pas donc euh, xeetu garab yooyu. jeexital bi nëpp mooy lan mooy dañu jàpp ne ñun jas mooy buntu Sénégal mooy buntu senegal ci wàllu jaww ji ak aéroport bi suba mooy nekk buntu senegal ci wàllu port bi ndax portu Ndayane dafa laal jas yéen ak Popenguine Ndayane ñu ànd ci ak waa Eaux et Forêts colonel Baydi Ba muy directeur national des Eaux et Forêts daal dinay fësal engagement wam ngir jàppale maire bi ci projet yi mu dëgmal ci pàcc yi ñu sas mairie yi environnement daf ci am solo loolu la monsieur le maire comprendre ñu ànd ak moom fas yéene nag tënk benn benn këyit boo xam ni ñun dañ ci jël engagement mooy pépinière Bandia bi nekk fii ci fas yéene déwén jël programme mu commune Diass lu ñu soxla pour 2023 ñu commencé ci jóg dès janvier suñuy prévisions yi ñu prévoir loo xam ne dañu naan lii kat commune Diass lañ ko jagleel parce que mairie bu engagé la donc ñu nit ñu mel ni lañ bëgg liggéeyal. maire bu Diass daal dinay xamle stratégie yu mu tëral ngir naka la ñuy def ba mën a toppatoo garab yi ginnaaw buñ ko jëmbatee ba noppi. fukk ak juróom-ñaari village la. ak juróom juróomi béréb yi ñu tuddee ay hameaux maanaam ay extension village bu ci nekk dañ fexe ba garab yi egg fa déjà ay comité de village conseil de village ñu ngi ñuy xaar waaye li ñu jot jëmbat ci mairie bi moom bu ci nekk bàyyale nañ ko nit wala ñu ndeyale ko nit ñooñ ñu ko bàyyale wala ñu ndeyale ko dinañ fexe ba ñoom aussi ñu toppatoo ko bu baax toppatoo boo xamante ne conseil de village yi nga xamante ne taxawal nañ ko ak chef de village yi ak ASC yi ak yi ak imam yi ak ñëpp bokk ci conseil de yooyu ñu assurer suivi bi Mamadou Ndione di maire bi jas bëgg-bëggam mooy taaral gox ba ak ay garab naax ba mu jàppee ni jas mooy buntu Sénégal